jébbal ko askanu mbuur lim nga sank ñi nga xamanteni nar nañ ci jot bokku na ci jigen ñi ndaw ñi bokku na ci chauffeur yi bref def ngeen de sorte que képp ko xamanteni mu ngi yëngatu ci béréb bo xamanteni ay nit dinañ fa dajalo ñu jot ci masque yi donc lolu mu mengok li nga xamanteni wa docteur ñu ngi koy digle comme mënatuñoo toog sunu kër yi war nañoo génn dem euh, dox ay yitte mais dañ ni la boo demee ba génn boobu mënul ñàkk booy génn nga takk sa masque yaakaar naa ni tey jii li ngeen def déjà jéego bu am solo la ci xeex bi waaye aussi ñaax la ñi nga xamante ni dañoo xaw a yor-yor euh, ci solo masque bobu parce que bo guenné ci biti alors euh, vraiment da ngay yéemu parce que day ndrok dal nit ñi dañoo japp ni fièvre bi mom jeex may profito ci occasion bi di wax ni nak jamono ji fi mbir mi tollu bu nit daan moytu ñaar wala ñett war na ba juroom wala juroom ben lutax parce que tay am na ñoo xamante ni dañuy am feebar bi kenn xamul ndax am nañ feebar bi tant que demuñu def test ñoom xamuñu ñu ngi ak feebar bi moom la ñuy wax porteur asymptomatique te ñooñu ñoo gën a bëri ci biir réewu Sénégal donc ñu ne la même ka nga xamante ni da ngeen daan jege yoo chaque fois boo bëggee mucc muccal ko da ngay jël masque sol te sol masque quoi qu'on puisse dire nekkul loo xamante ni lu jafe la. en tout cas man day gisuma ci ben jafe-jafe eh, donc kon ñi continuer di ñaax askan wi ni len masque nañ koy sol amna na ku ko wax sank masque ci baat masque ci bop masque ci nopp <laughs> du masque masque pour mu am jariñ dang koy sol mu mur sa gemeñ mur sa bakan alors yoy pour man nekul lo xamanteni lu compliqué la surtout que doo sol chaque instant peut-être bu nekké ko xamanteni yow doy dem ci biti lu bari bo nekké sa biir kër mën nga ko baña sol mais bo démé nak ay lay ba wara génn ñu ne la solal masque bi en tout cas tay japp na ni campagne bi bokku na ci li nga xamanteni warna tax tay kenn baña dem ci béréb yi dajalo te solo masque daal di mussel sama morom donc ñuy jaajeufal ñepp ñi nga xamanteni japp nañ ci liggéey bi parce que li day woné solidarité ak and bi nga xamanteni ragné nañ ko wa Mbour parce que man bima fi nekké yagul mais quoi qu'on puisse dire gis naa ni à chaque fois que kenn jël ben initiative ñeneen ñi ñepp dañ ko ci dolel té loolu mom mo am solo surtout ci jamono ji ñu nekk. cadeau yi cadeau rafet lu rek la pour vraiment remercier. action yi nga xamné les femmes euh, du département def nañ ko euh, Tata yassine djité ko ak sama mak euh, Sira ñu koy rafetlu torop nak parce que personnel de santé chaque fois dañu naan ñom ñoo nek en avant ñu ngi leen di ñaax di leen encourager mais ñi tam ñu jar encourager lañ parce que wax nañ ko légui depuis le début bi feebar bi duggé Sénégal suñu première cérémonie fi première semaine mois ki bi la mois de mars bi la té ñom ñoko initier initié woon ñëw jàppale ñu jox ñu ay matériel donc personnel de santé boko joxé matériel rek lolu mo koy ñemeloo donc di len encourager parce que boobu ba léegi aussi ñi ngi suñu ginnaw bayyi wuñ ñu chaque fois ñi ngi jot ay dotation yu joggé ci préfet té lolu yépp ñom ñokoy dox ñom ñokoy wax euh vraiment kontaan nañ trop di massaw aussi euh comité départemental bi nga xamni préfet moko jité parce que mbass mi aussi mi ngi bëgg yagg mi ngi bëgg lu yàgg tamit metti mi ngi commencé metti comme niñ ko waxee mënatuñu toog ci kër yi maanaam à temps plein ñu éviter génn yi nga xam ne mënta ñàkk mais foog ñu génn aussi doxi soxla yi économie bi mën a dox el pour loolu aussi dafa am digteel yu nga xam ni jox nañ ko kuy génn na nga sol sa masque éviter euh, saafonte bi euh, respecter distance yi te lolu aussi ñun jigéen ñi am nañ ci rôle bu mag mag bu ñu wara jouer parce que légui wax nañ ñun ñoy tok ci kër gi ño wara a njabot njaboot gi rek ma ngi koy wax demb damay doxantu génn ay 18h30 côté plage bi fess del del del ak ay xalé té lolu ñun am nañ ci part de responsabilité parce que tamit état mënul nek ci biir kër yi di téye xalé yi ñun ño wara a xalé yi donc may ñaax sama bop di ñaax suñu mbokk jigéen ñi xale yi xeyna na bi day nek seen yaram duñ ko yek ay xalé porteurs donc muy wax porteur asymptomatique mais war nañ sensibiliser pour ñu ñi ci pour éviter parce que plus muy law plus muy metti ci ñun plus muy metti ci état du Sénégal. wa li euh, euh, dañu ci préfet Mbour bi nga ñi madame le ministre de la femme initiatrice projet bi muy des masques pour sauver des vies contre la Covid les femmes se mobilisent un projet une femme un masque Nous euh, gis ko défé fi ci Mbour Tata Yassine, Nous suñu point focal ñu aussi suñu nous ay ñu qui ci mbir mi euh, ñi bëgg rek profito ci ci ndaje mi euh, sant ñi nga xamné jëmmal projet bi Nous wax ko sank lim ko ci préfet mais aussi gëreum très honorable ñi nga xamné ñoy jigen ñi dans le département de Mbour amul benn parti politique euh, euh, bàyyiwuñu benn femme donc ce sont les femmes qui se sont mobilisées bataille tey euh, ñu mëna collecter li nga xamné collecter nañ ko ci masque euh, te Yassine wax ko sank. donc li am solo moy rafetlu nañu projet bi te permettre nañu tay au-delà des actions yi nga xamné jot nañu ko def sur le terrain en tant que ay responsable politique en tant que ay ay ay ay ay politique euh, ñu ñëw taxawé ko sunu sunu askan taxaw ko sunu watu askan Andak le président de la république andak préfet bi nga xamné mo jité comité bi fi au niveau départemental daal pour ñu mën xeex li nga xam ne mooy mbas mi mu jóge fi définitivement ci Sénégal mais plus particulièrement zone bi nga xam ne fi la ñu dëkk muy Mbour commune ak département bi donc liggéey la boo xamante ne liggéey bu am solo la parce que ni ko préfet waxee madame la directrice wax ko masque tey bokk na ci jumtukaay yi nga xam ne moom la ñuy ñaax askan wi ñu di ko di ko sol pour que tey ñu mën a sauver wu maanaam ñu mën a mucc ci xeex bi bokk na ci yi nga xam kër waa kër docteur moom la ñu wax askan wi ñu di ko jëfandikoo pour mën a mucc ci feebar bi kon daañu ci profité aussi ci occasion bi pour ñaaxaat askan wi ni ko sunu yaay taa Yaasin waxee ñu gën a fagaru ndax masque bi jàpp naa ne boo ko takkee dina am lu bari loo xam ne dina la ko muccal ci feebar beneen bi aussi responsabilité bi dafa war a nekk individuel d'abord après nag mu nekk une responsabilité collective parce que nguur li mu mën mooy ñaax askanam médecin yi li ñu mën mooy ne lii kat bu ngeen ko defee di ngeen mucc ci feebar bi kon ngalawaay bu fekkee ne kër docteur dafa ne lii la ñuy def pour moytu mbas mi nanu fexe ba def loolu su ko defee yàlla mi mën a muccal muccal ñu ñu mën a ànd aussi ensemble xeex feebar bi ndax dafay yag te lu aussi bu dafay ma mais bo comme si euh, corona amul day en période de pandémie alors que tay bo xolé xam ngén né sa bu ñu xëyé rek yokku ñi aussi ci kon avec plus de prudence plus de vigilance ñu euh, ensemble li nga xam ne moom mooy Covid 19 mu jóge fi définitivement. ngi tànnoon ñi nga xam ne parce que boo xoolee projet bi bi ñu ko tegee au niveau national dañ na dëkk bu nekk rek ak spécifité yi mu am Mbour nag dafa am nu mu bindoo rawatina commune Mbour. moo tax ñu njëkk a xalaat ñi nga xam ne ñoo ñuy aar di ñu sàmm ci feebar bi ñu ci ko jiitu mooy le personnel soit soignant féminin ndax dañ di ay jigéen te ñu am ci euh, secteur boobu ñoo xam ne dañ caa nekk nekk cay jàmbaar. ñu bëgg apporter suñu soutien moo tax gis ngeen ne jël nañu ay thermoflash jox ko directrice su hôpitalu Mbour jël nañu li nga xamante ne moi mooy ay combinaison pour habiller ko ñi nga xamante ne le personnel soignant féminin mais aussi jël ay masque chirurgicaux accompagner leen ko ñu and ensemble mën a xeex ci cible bi aussi xam ngeen zone bi ñu nekk zone pêche la donc ñu xalaat ñi nga xam ne ñoo nekk ci géej gi di ay sœur ay jigéen mareyeuses yi bokk nañu ci ak ñi nga xam ne yàlla dafa dogal dañuy waas jën ak ñi nga xam ne dañuy jaay mais rawatina nag grand place yi ak fi nga xamante ne fa la ndaw ñi di ëpp dinañ fa dem distribuer fa li nga xam ne mooy masque yi woo nañu aussi ci biir euh, cible boobu garage Mbour ku ne xam na ne Mbour Carrefour la donc mënuñu xeex mbas mi te duñu ci sóoraale la secteur du transport moo tax gis nga kilifay transport routier bi ñëw nañu aussi ñu defal leen une remise symbolique buñu ko défa défé dal ci misal manam lu tollu ci fanweeri junniy masque lañ am mhm. parce que ba fi may wax ak yow ni gis ngeen mbuus mi mu yor suñu sœur Astou Diarra bu Sali moko indi contribution muy 100 masques ba fi ñuy wax ak yeen jigen ñangi indi masque yi ñu continuer di def collecte bi tey fanweeri junniy masque mën nañ japp ne mom la département de Mbour amagum jigen ñep andon ci nak bok ci nday bokk bay toute obédience confondue amul femme politique amul leader politique mais nak dañuy fàtte di wax wax ci waxtaan wi ne leader politique yi nag gën nañ see ràññeeku. Mhm. mooy ñi nga xam dañu am ay poste de te jiitu ci nag kiñ ci jiitaloon donc ñoom ñëpp dugal nañ seen loxo bu baax a baax bi ñu góor ñu jàppale.